salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna maa ngi di siyaar di leen nuyu bu baax Zeyna maa ngi leen siyaar euh, Khalil ceer baay Fall bi aussi sama jigéen nu mu tudd sax Xawaa ndeysaan maa siyaar di siyaar ñëpp di siyaar mbokk internet yi di siyaar Sénégal di siyaar képp képp ku nekk ci bitim réew ak ku nekk Sénégal maa ngi lay siyaar di ñaanal sama ñaari waajur fa ñu nekk yàlla xaral ni àjjana fa ñu nekk gërë leen fi jege ak képp ku fa fekk ak ku leen fa fekk. ak suñu maman Diaga di ay Wally Ballago Seck suñu président suñu woykat suma patron suma lépp di ko ñaanal jàmm di ñaanal Sénégal yëpp jàmm barke Seydina Mohamed maa ngi jégul nag baat dafa xaw a dee voilà. am alors indi beneen cap ñu gis Wally Diop euh, Wally euh, bon ñu bari ñu naan showbiz la showbiz. mais Wally moo raw soobi moom soobi suul peut-être nag keneen xaw ma ko ci koom mais Wally du soobis moom dépassé na soobis euh, kilifa la lu muy def rek da jël initiative boppam daf koy gëm parce que ku nekk xam naa Wally ak xolam Wally ni mu bëggee doomu aadama ki nga naan Wally bañ na ko wala bàyyi na ko kooku la Wally gën a mën jàpp Wally du bañ nit du bàyyi nit te lu mu def rek daf ko def propre ak xolam bu rafet daf ko def propre ak dëggoom Wally du koy soobis keneen nag xaw ma ko comme Sidi Diop peut-être. xaw ma ba xam day soobis wala du soobis mais euh, Wally moom wax yàlla soobisul euh, def na ne Sidy doomam la rakkam la problème la léppam la mu ñëw pour won ko yoon incha allah ci bersi bi ci ci ci ci euh, série bi parce que boo xoolee ni mu waxee nga xam ne ku ko yéene la te ba mu duggee la loxoom ci série bi la am bruit la am coow te dinañ gis loo xam ne surprise lay doon incha allah ci Wally. waaw sant yàlla di di wax sant yàlla noonu la showbiz la euh, ñoom dañuy showbiz pour jaay seen événement parce que ku nekk xam na ne jeune it yombul tey ndaanaan dëgg moo fay dem te Sidy Diop jàmbaar la macha allah jeune talent la wane na boppam prouvé tey bañ koy tëkkaleeg le centre du peuple tey bu ñu nee waa dama wan luñ ci teg keneen dañ naan Sidy Diop deuxième kon yaakaar naa liggéey na tey ba àgg foofu fekk na fa ay grand frère am tey liggéey ba tudd duñ grand frère ñu tudd tey buñ tuddee kenn lu may Sidy Diop kon prouvé na tey ci showbiz prouvé na ci musique sénégalaise ba tey àgg am ba bu àgg man xam naa ci dara parce que yàgg nañ dama koy ñaanal mu gën a continuer mais nag dañuy dañuy showbiz ñoom pour jaay seen événement parce que ñëw li ñu wër tey ñëw ci artiste yëpp te ñëw ci Wally Seck xam nañ ne Wally Seck mooy daj dëpp gi boo ko laalee àdduna nga laal waxuma la Sénégal fallait que ñu ñëw jaamu seen soxla donte nag ñun ñaa ñu bëri ñu leen di ŋàññ waruñu ko def waruñu ko def war nañ ko def mais nit ñoom la day ñëw jaamu soxlaam pour tey jaay événement parce que lim mu def noonu la war a def man dama ko rafetlu Wally frère am la te kon nag ñun Wally mooy suñu lépp mooy suñu patron mooy suñu président duñu waxal kenn ku dul Wally ñu wax ci kenn ku dul Wally fa la ñuy commencé fa la ñuy yem moom lépp loo xam ne laal na ko ñun dañ ciy topp incha allah laal ko te comme moom recevoir na Sidi Diop wan na ko sama rak sama doom nga macha allah yan la yaa jàppale may teg loxo ñun tam dañ dañ koy ñaanal yàlla ñun daal boo ko mbagg rek am na ñoo yoo jàmm mais bés bu ñu dëgguwul ñoom ci liñ def pour ñëw pour événement bi kese def benn affaire ah yaru rek déggoo li mu la am na talent macha allah mën na woy ba pare xale yi bëgg nañ ko je comprends nga mais dafa am manque xam nga di nga mën a woy am talent macha allah am visage bu naaj mais dafa am lu lay manque ci sobis comprendre nga si dafa am lu ko bëri lu ko manqué woon ci showbiz moo tax demul moo tax toujours benn niveau bi lay nekk mais mu ngi commencé màgg léegi mu ngi commencé xam comprendre nga dañ ko doon loo yoon bu bëri mu xam nga muy am ay noon te artiste am ay noon après artiste warul gaaw wax te Sidy Diop après lu mer rek lu ko lu mer rek après day génn wax ci micro da ngay najaal lu bari teg ko ak soxol Wally doo gis muy tontu doo gis muy wax loolu moo ko may li mu ko may tey grandeur boobu tey te Wally dafa nekk koo xam ne bon femme dafa mature quoi comprendre nga lu bëri day bàyyi mu set parce que xam na ne moom la yet bi dal moom la yàlla jiital ci musique sénégalaise mu nekk number one moo tax lu bari day bàyyi mu sedd parce que xam na ne loolu la war a def mais Sidy Diop muy commencé muus parce que tey ba mu ñëwee tey ba dem. li gënoon ñaaw mu demoon Bercy te ñëwul ci xalifa général am muy Waly Balago Seck di kilifaam di léppam di nokk am ci soo bis moom xam na ko. mais mais mais Siriop non soo bis mënul yàqu xam nga la moo tax peut-être ñoom mais ci waa côté Waly ci côté Framarane côté Waly ñoom soo bis mënul yàq ñoom parce que xam nañ yoon bi ñuy defee soo bis ba pare ñu ngi tegu ci loo xam ne du ay buzz ay bad buzz moo leen yor seen musique déedéet. Wally doxul ci bad buzz doxul ci buzz Wally ci liggéey professionnel lay dox comprendre nga doxul ci dara loolu mënul yàq musique euh, maanaam euh, showbiz Wally xaw ma keneen nag mais musique am day yokk ñu jàppale xale yi mais mënul yàq. suba teel comme. Euh, waaw moo tax. chaque fois mooy créer bruit yooyu moo tax wala chaque fois ñoom dañu ni arrangé toujours Matar suma grand la maa ngi koy passage jàmbaar la gaynde la parce que Seexul Xadiim nit loo ko bañ bañ bañ na koy waxal li mu def donte man du ma wax kenn lu mu deful mais Matar koo xam xam ne musique sénégalaise bi da cee am lu mu ci def macha allah da cee marqué empreinte fekk ay jeunes talent yoo xam ne kenn xamu leen mu génn leen ubbi label tey ba wane leen bañ ne buñ ne waali ne suba teel musique buñ ne faramare ne suba teel musique kon Matar am na lu mu def ci showbiz bi pourtant yàggul ñëw. Matar mu ngi woon ci leneen mais pour dafa ñëw dëggal boppam ubbi labelam jël ay xale yoo xam ne kenn xamu leen xamuñ dara mu boole leen comprendre nga ba tey àdduna leen dugg dëgg tey kon Matar jàmbaar la donte bon du ñu liggéey du ñu def mais jàmbaar dama koy wax li mu nekk comprendre nga mais tey ñoom waali moo leen yóbbu fu ñu àgg tey seen label dangay def nang waali moo leen yóbbu parce que la njëkk ci néeg bu lëndëm moo la contact bi mu nekkee dégg nga. waaye am benn trace la amoon ma ko ma ko a dem nar ne la xam maa ko producteur la maa ne yàgg na yóbbu ay Baaba Maal ak keneen boobu subatal amul wala déggoo ma yow maanaam label subatal bi ko bi mu hésité yàggul mais Matar yàgg na yóbbu ay musiciens Europe waali moo ci gën a ndaw ñi mu yóbbu yóbbu ma Baaba Maal yóbbu na fi ku nekk. si je comprends nga moo tax ma ne Matar la parce que yàgg na yóbbu ku nekk Europe boobu ubbeegul label Sénégal si je comprends nga producteur lay xool ku am talent wala koo xam ne am nga talent ndaw nga amagoo doole sax mu jàppale la kon Matar jàmbaar la comprendre nga mais Subatel musique lañ wax muy label bi je comprends nga bi mu juddoo yàggul foofu laa waxee mais Matar koo xam ne jàmbaar la ba muy yobu ay artistes Europe kenn xamul kañ la macha allah wax dëgg yàlla dañ koy nangul jeunes yu bëri tey bu ñu demee Europe tey grâce à Matar Diop Subatel. dama koy nangul comprendre nga. d'accord hmm. comme que bi moo toll foofu soo bi moo toll foofu ole pop ak léegi du benn léegi dafa am nu mu demee comprendre nga ku ne Wally mooy le king la musique sénégalaise tey bu nee dama ne waxuma la ci Sidy Diop mën na dugal Zénith exemple deux mille personnes wala mille cinq cent personnes. à cause yoo xam ne ñoo Wally moo tax ñu dugg si parce que Wally ku ne xam na ne waxuma la Sénégal mais adduna ñoo ko bëgg Gambien yi Nigériens yi kenn koo ko bëgg kon bu wootee ne dama bëgg ngeen jàppale sama rek sama élément dama jàppale ne mooy sama poulain di Diop ngeen ñëw jàppale ko jeune dañuy dem te boo gisee ni mu waxee nga xam ne Wally du wax lu mu gëmul barki Seexul Xadim comprendre nga tey dégg nga li muy wax loolu moom lañ def tey conseil bi leen jox moom def tey Sidi Diop dem na démb jékki dem na bu yàgg ma leen Zénith du fii di ngeen def yëpp am na solo macha allah mais gaaw leen dagg seen dëbës takk seen dëbës dem Paris yëngal ba mu neex incha allah te di ngeen gis réussite di ngeen gis surprise nit ku baax loolu lay wax waaye bu di du wax loolu da ñëw toog jël parole wax li muy wax mooy loolu je jàppale Sidy Diop mooy lan day tax nga dindi sa vingt-neuf ah. jàppale Sidy Diop li mu jàppale Sidy Diop mooy ku nekk xam na ne waa li gémmiñam dafa lim ko jàppalee même bu demul même bu demul Zénith day mel ni Wally dem na parce que leer na ma ni. plus de non déglul Wally mu ngi tëgg Allemagne loolu dara loolu dara Wally mu ngi tëgg Allemagne Sidi mu ngi tëgg euh, Zénith te heure yi bokkul Wally mën na dem sax ci Sidi Diop doog di dem fi tëgg mën na ñàkk dem ci Sidi Diop te teewul day mel ni ñëw na parce que xam naa ne Paris yëpp dinañ génn incha allah à cause de Wally dem ci nga xam ne moo di Sidi Diop rakam suwendal ko. te Waly gis nga li mu barki dem gëm naa ay ah ah non déggoo li ma mais xam nga la moo tax ma la ko damay la mën na dugal deux deux mille cinq cent personnes Sidy Diop wala mille cinq cent personnes moo tax ma la ñooñu ñu dugg à cause de Waly mën na tax ñu dem parce que Waly mooy leen dama leen jàppale sama rak wala déggoo ma loolu moo tax ma la te xam naa ne Waly bu demul ñu sës ci Waly nañ dem barki Seexul Xadim mais mais jiwoo boobu ndax ku si mel ni mhm. mm. amul lu ma ko waxul mais soo bis la te mosuma koo dépassé mosuma koo saaga mosuma koo wax lu ñaaw comprendre nga ba bu ma ko gisee damay rus mais soo bis la man ku laal sama leader damay dal sa kaw ku nekk xam ne ne man te muy dëkkee mi ko tey Wally Seck tax kon képp ku laal damay dal sa kaw muy suba muy ngoon comme li délégué waxee sama sama sama sama sama directeur délégué li mu waxee comprendre nga tey. bu ñuy dal ci Sidi Diop waale moo tax parce que kenn du ko tëkkaleeg waale pare di jéem a yàpp suñu président ndax lan Sidi Diop comprendre nga mais lépp showbiz la te musuma dépassé showbiz musuma tudd yaayam musuma tudd ko wax loo xam ne su ma gisee dana a wala su gisee damay rus mais côté showbiz toujours damay jaf yëngal ba mu saf comprendre nga dóor ci xeer ba mu dëgër pour waale jëm ca kanam ñoom ñu nekk ci suuf te xaar rek ba pare ba ba léegi ci laa nekk lépp loo xam ne dañ ko moo koy def te waale raw leen sa kaw dama koy def ci kattan yàlla parce que ñun loolu am mais Sidi Diop moom xam na ci dara seen waa xam nañ dara est-ce que comprendre nga lii lii barki démb la mu ngi nii lii mu ngi nii ñu nuyoonte ree saafante est-ce que comprendre nga kon ci Diop waxuma wax lu ñaaw def ma wax lu ñaaw mais sow biis la damay xëcc ba mu jëmale ci Wally Ballago Seck sama xarit sama président sama patron barki démb rek moo ci yem almadi ci dama gis yàggul dara feree na otoom yor kàr feree na ko gis ma gisuma ko mu wàcce verre ne ma ñëw ñu saafante parce que sow biis la damay xëcc jëmale ci Wally Seck sama leader te ba ba ba ñu bàyyi musique incha allah waal da koy féete kaw ci ñëpp nag voilà. non mën na màgg déggoo li ma la wax ñun papaam lañ maanaam waali papaam la grand frère la non da déglu ma loolu la ñaan mais du bu du yi li ma la yàlla moo joxe nag quoi dañ koy ñaanal parce que mu ngi dem si ñu koy ñaanal te waal dégg nga ni mu ko wax songa sëriñ daan ko ñëw ñu songu Bercy loolu ku soxor na ko wax kon dañ koy ñaanal mu dem ca kaw. Sidi Diop dina dem ca kaw am na talent bi macha allah ñi ko topp nañ ko gën a jàppale bañ ko di gérer won ko ne affaire affaire bi showbiz la du guerre ñun géeruñoo kenn man amul kenn ku ma géral bi ma rajo suba teel mi sama grand la sama lépp la dañuy savante amul problème moo soxla woon léegi ma woo ko téléphone barke Seexu Xadim parce que sama grand la ñoo bokk Sénégal te ku nekk xam ne am lu fi def amul kenn ku ma noonoon mais showbiz showbiz la man ragaluma dugg kër ma rajo suba teel barke Seexul Xadim bëri. te mooy délégué Amar taxaw soxna ki loolu moo lay wan ne c'est le Sénégal qui gagne mais nag bu soo bi ñëwee dañ koy yëngal ba mu yëngu kenn ku nekk camp ba nga nekk jëm ci kaw keroog dèjà boucher bi war na yee ñëpp euh, Wali Seck bi ak euh, kii Sidi Diop tase ci délégué Amar. war na yey ñëpp délégué Amar ñëw ak Sidi Diop saafante kontaan waxtaan parce que c'est le Sénégal ci suñu biis la te suba buñ xelewaatee dañuy yëngal ba mu yëngu wala déggoo ma ba léegi bu xewlee dañuy yëngal ba mu yëngu mais ñoo bokk ndey ak baay bu soo bi jeexee jeex na mais ku dal ci waali sekk dañuy jël ñun suñu propre défendre ko kenn duñu xaar waali wax ko duñu xaar kenn wax ko parce que xam na li ñu war ci waali moom loolu lañ la ñuy def amul leneen mais nag c'est le Sénégal délégué yi mu def keroog euh, xewle Sidi Diop ñëw mais loolu mooy Sénégal bu sóobi jotee ñun ñëpp dañ bu sóobi dañ koy si ba mu neex mais bu bu xewle dañ ñëw teewal ko parce que ay juri lañ loolu la yàlla wax mais sóobis du diine sóobis du diine doom day délégué li mu def keroog ak Sidi dafa rafet loolu mooy Sénégal loolu mooy àdduna loolu mooy dëgg dëgg dëgg na ci jullit mais sóobis moom bu ñëwee dañuy xëcc ba mu teñ jëmale ci Wally Seck xaaruñ ci kenn voilà non loolu loolu wax na kontaan ci ñoo toogoon léegi ni mag moom bi ma ceer di woo ñoo toog maag moom ñoo añandoo barke sëñ Saliou ñoo añandoo ci vice président muy Ndiaga Euro walla ñu ñuy añee chaque jour suñu grand suñu lépp suñu kilifa ñoo añandoo léegi Pawlish ñu waxtaan kontaan parce que waali kilifaam la papaam la doom ak papa dañuy laalante ci kër mais doom ji souvent day mer sax génn kër gi mais day ñëwaat kon loolu non amul jaloux démb ak ah, démb Omaro ak Pawlish ñoo toog même place fii dara amu fi jàmm ak salaam histoire mënul ñàkk guerre mënul ñàkk ci kër mais kilifa boo nekkee ci kili kër Wally mooy suñ kilifa ñun ñëpp njaboote ñu ci showbiz souvent ñun dañuy laalante mais Wally da koy réglé waat suñu biir instant yi aw Pawlish ak Wally ak Omaro ak ñëpp ñëpp a ngi si jàmm liggéey la ñu gëm Wally balaagu seeg tournée bi allah ñu dem ca jàmm. mu réussir ko incha allah ci kattanu yàlla lay ñaan mais fii dara amu fi ñëpp am nañ jàmm laalo nag mënul ñàkk alxatri am na bu baax diggante waali ak doomam mais jàmm ñëwaat na saa neex moo ko def gis nañ ko macha allah mu rafet Omaro ak Pawlish ku nekk xamoon na ne safara ak caas la woon mais lépp jàmm ñëwaat na président Wally mu Seck moo lijjanti lépp te loxoom jogul téléphone am jógul dara am jógul te rek na la lépp mag yo laa yogoon nañ fi mëpp incha allah voilà lépp loolu gën a kesoo rek incha allah dinañ ko wax incha allah. d'accord rek lay lay waaw lépp rek su di ci sant yàlla xam nga Sidy Diop xam xam ne boo daggee xoolee xol bi. waale nga koy fekk mu frank la avant tout bu ko waxee ak bu ko waxul comprendre nga waale itam këccëg la bëgg parce que këccëg dafa neex këccëg moo dàq fii dafa neex suñu për yëpp macha allah dafa neex comprendre nga euh, loolu mooy àdduna parce que waali waali xamul noonu waali ki nga naan waali da ko jëndi daal ci kawam xamul loolu loolu xamul kuy def lu bon te këccëg frère am la comprendre nga te këccëg waali la bëgg barke Seydina Mohamed. dafa dem keroog ànd ak Sidi Diop ñu toog waxtaan après waaye nag ku jëm ne ko nanga ñëw na nga ñëw sama immigration après ku jëm na ko euh, wàll ne ko waaw dinaa ñëw jël xaalis bari pare jox ko ba pare ñëwal ko di ku jëm jàpp na ne wàll du ñëw wàll su ne dama ne dama ne da koy def man xamoon naa wàll day ñëw parce que wàll moo mën ki nga naan wàll du ko jàpp wala wàll daf ko bàyyi wala wàll daf ko mere ko wàll kooku la gën a mën a jàpp wàll dafa xam li ko yàlla defal. ko am fulla la nag waali euh, ki nga naan tey moom la gën a bañ moom la gën a bëgg waali xamul noon xamul doomu aadama la xam na nga nekk doomu aadama rek barki alxuraani karim waali jàpp na ne saa yu la gisee yow dalaa war a defal teraanga chaque jour barki seexul xadim xamul toroxal doomu adama waali moo mel noonu su ko naan nga fii la bougé wax na ko fu nekk mais lépp day xam ne showbiz la lépp ci showbiz la delluwaat te moo tax waali bougé bougé toog ne ko waali li ma fayal li ma lebal dinaa ko fay ba mu kontaan te xam na ne Wally amul problème te pourtant léegi wax na ko Wally xoolal fii lañ jëm jeune bu kii bi euh, Sidiki Diabaté bi Mali Mali bi te gars yi wax nañ ko ne loo dégg bi Wally ñëwee keroog restaurant ñëpp ñëw ne ñëw fa affaire yi mel ni mooy loolu Wally Wally léegi gars yi na ko léegi lan nga dégg tey Mali nga dégg wala Wally mu leen tey moom Wally laa dégg <laughs> kon bougé Wally la bëgg te Wally xaritam la frère am la léppam la. incha allah c'est senegal Sénégal quoi voilà. taxawaay bi taxawaay mooy comme le président suñu patron Wally Ballago Seck lépp lu bëgg ñun soo ba ci la ñuy xëy ci la ñuy gont ci la ñuy fanaan bu nee nii topp ci kenn kooku lañ topp waxloo wuñ defloo wuñ li ñuy jël ñoo ko jël suñu responsable xam na ko moom. te xaar rek arrangé nañu. waaye lu ko na ñun man bokk. waaye lu ko arrangé arrangé ñun wax ñëpp parce que ñun ko bëgg ba lépp lu mu lépp lu mu bëgg lu mu jubal jubal nañ ci ànd ceeg moom ci liggéey bi kon comme xëccaat na rakkam tegaat ko ci kawam na rakkam tam xam ne kii kat frère am la papaam la léppam na mu yaru woon ko yoon lépp na yaru la ñu bañ la duut baaraam ngay def lenn. nga teg fa nga tagoon Sidy Diop ku baax la ku yaru la comprendre nga mais peut-être ñu am entourage bu ko kiyoon ñenn ñi di ko ñaan ko léegi moo tax mais bu dëggalee Matar si suba teel Matar waale la bëgg waali waali waali Matar la bëgg comprendre nga vraiment kon affaire du showbiz la woon xëccante te ñun ñun ñi ñooy neexal showbiz bi ñun ñooy neexal showbiz ba neex du waali du ko neexal keneen du ko neexal Sidy Diop du ko neexal ñun ñooy génn di ay di classe affaire yi neex parce que loolu mooy showbiz te si wàllu ñuy waxal wàllu musuma wax jënal wax musuma wax itam bam ne ma li nga wax macha allah rafet na wala li nga wax di déedéet yoonam ne ko ci daf may mere sax léeg-léeg ci génn may génn te fii ba suba incha allah may génn parce que ci wàll lay wax ci laa yem ci laay kon Sidy Diop nag kon léegi comme lépp am na jàmm ah na xool yoonu musique am macha allah mu topp ci magam xam nga euh, ñëw mu woon ko yoon incha allah mu jàll incha allah ci kattan yàlla loolu kese laa ko ñaan xale yi képp koo xam ne itam. bëgg nga réussir incha allah bu yoon nga teg Wally Seck tarbi ko ci musique comme ni tarbi ay papam ci musique voilà. d'accord alors gis nañu instant bi euh, coow bi ci wàllum politique ñu ngi ay mbirum góor jigéen que ñu ñëw euh, Sonko invitation bi nga xam ne def na ko Jean-Luc université ñu waxtaan bi ci gën a jàpp Sonko dafay dafa ne. dañoo <coughs> ni ma ko jàngatee mooy man ruus tur bi sax ruus naa ko tudd man parce que jullit pire la xam naa sama bopp moo tax ma ko wax dëgg yàlla mais rafetlu ma Sénégal ak fi mu toll instant nii jamono ji mu toll Ousmane Sonko ak euh, président Diomaye bi ko jëlee ma dugul sax trois mois je crois que ñu war a defar Sénégal mais ñëwaat ñëw di yàqaat mais ñu may gën a wax ñoom laay sampaat baaraamu tuuma muy Ousmane Sonko. ak euh, président Diomaye parce que am na loo xam ne ñoom war nañ ko rus am na loo xam ne war nañ ko jomb pour askan wi di leen ko wax wala di ko séentoo pour man du sax seen première liggéey ñuy laal lépp loo xam ne wàllum borom ñaari tur la maanaam. Euh, non amul en tant que Pastef nekkatul Pastef Ousmane Sonko non xaaral rek premier ministre la premier ministre la premier ministre ak ak Pastef fan moo gën a fort. mois bi ci Sénégal moo gën a fort kon premier ministre la demee. je non man d'accord ma lool waa léegi wax na lool man li ma wax man laa wax man man d'accord man gisuma loolu man sama gis-gis kon ku nekk sa gis-gis man su ma sënoon du taxaw foofu parce que dafa am lu ko Sénégal di xaare te xam na ne moom dafa weex dunq je comprends nga nit boo weexee dunq am na xam lu bëri da koy moytu mais du woon moment bi ñuy may xale yi lu ñu wax wala ñuy may ñeneen lu ñu wax am na kuñ ci téye démb je crois que comprendre nga kon waaw kon dèjà ñoom euh, du ma ko wax fento parce que ñoom ay duñ fento ay julli lañ comprendre nga mais ñu ngi rafetlu ko xaaral bu la àggale rafetlu ma ko dama koo dama koo sip li mu wax parce que nit ki lu ñaaw waru ko génn sa gémmiñ pour man rafetlu ma ko benn yoon dafa ñaaw surtout kilifa surtout ko am ay njaboot surtout koo xamante ne dañ ne tey mooy kilifa ci dëkk bi nga génn kàddu yooyu di ko jëmee ci moom dafa ñaaw je comprendre nga nekk loi moo fi nekk loi da koy teg ci yoon dafa ñaaw ànduma ak moom benn yoon je comprendre nga mais tey maa ngi gisaat lu bare bari ci internet bi tey. jàpp nañ a teg ci yoon dem di di génn ay yenn kàddu yu ñaaw. déggoo ma la wax mais ku fi génne kàddu yu ñaaw ñu teg ci yoon yoon Ousmane Sonko moomu ko jamaay moomu ko yoon man mii dafa cee am part yow mii dafa ci am part fii ku fi jàdd yoon ñu teg ci yoon nit da ngay wax wax bu rafet surtout kilifa boo koy wax da nga koy wax wax bu rafet jëmee ko ci moom parce que ñu nekk ci moom ginnaaw ñu bëri man waxuma ay passif dañoo romb ay passif nekk du ay passif instant yi c'est muy Sénégal est-ce que comprendre parce que beneen côté président lay wax dans les publics kon dañ ko war a respecté. d'accord kon lan ngay wax ñi ne dañ naan léegi ñoom dictature amul Macky Sall ak même Ousmane Sonko bi jógee ak tey ku fi teg lu yoon dañoo jàpp amul ay dictature dañoo jàdd yoon yoon teg leen ci yoon fii ku fi jàdd yoon la ñuy teg ci yoon il se comprendre nga man mii tey su ma waxee loo xam ne waruma ko wax dañu may teg ci yoon te dama koy nangu ah comprendre mais wax bu ñaaw moo war a jeex Sénégal ba pare nañu arrêté wax bu ñaaw bi képp ku fi waxatu du ñaaw ñu teg la ci woon internet bi yàqu na léegi parce que wax du ñaaw te wax bu ñaaw bu ñu ko koy wax sa der saye même bu dul dëgg sax say njaboot sax bu ñëwee duñ comprendre gëm la wala dëgg je comprends nga il est temps ñu defaraat dëkk bi. presse presse dañoo jël kàddu Ousmane Sonko traité ko ni dafa d'accord ci borom ñaari tur yi alors que presse internationale bi dañoo wax ni que Ousmane Sonko dafa déclaré guerre est que du dañu mës am haine ci Ousmane Sonko wala. peut-être loolu ñoom ñoo xam peut-être dañoo am haine wala amuñu haine mais man Jamra du ma ci wax parce que duma ma ak ñoom quoi man Jamra je sais pas xaw ma mais neexuñu ma. neexuñu ma man waxuma ay keneen man neexuñu ma daal. non mosuñu ma ne non mosu mais mosuñu ma neex man am na droit. no xaw ma je sais pas xaw ma peut-être ñu ngi def lu baax mais neexuñu ma du ma wax ci ñoom. sérieusement non non rôle bi ak ñoom bokkul. déedéet ak ñoom neexuñu ma du ma wax ci li ñuy def macha allah mu ngi naaj mais du wax ci ñoom am naa droit du ma wax ci ñoom parce que xam naa itam ko du ma wax ci ñoom rôle bi ñuy def mu ngi naaj macha allah ñu ngi liggéey seen liggéey ci réew mi parce que diine lañ fi nekkal mais man automatiquement neexuñu ma ñoom xam nga li ñuy def neex ma ak ñoom ñu ma du benn su ko nga li ñuy def neex na ma macha allah parce que ñu ngi xeexal diine te man ci diine ji laa bokk mais jëmm yi laa wax jëmm yi ñoo ma duggul moo tax te man ku ma sa jëmm nag ku ma du ma wax ci yow. noonu la demee. d'accord alors euh, ngi wax ci yenn commentaire yi ne procureur bi nga xam ni parce que ba ku mel ne ba Diakité procureur bi mu autosaisir bi jàpp ko Ousmane Sonko déjà du moom moo donc ñun ñuy wax ne que maire yi nga ko doon meree euh, est-ce que jàpp euh, ba Diakité ci kàddu yi yëkkati est-ce que du nekk genre demi pardon pour moom defoon ci nguur Macky Sall yëpp. waaw xam nga gars yi moom Sénégal lu la ñuy xalaat. mais pour man loi moom amul ay ay pardon ay li ma fi defoon ak yooyu déedéet loi lépp lu ñëw ni mu ñëwee dañ ko war a traité pour man doo xool li li jàlloon wala déedéet parce que cas bu nekk ak ni nga ko war a traité pour man nekk naa day def pardon ay affaire yooyu parce que jaxase dafa jàdd yoon moo tax dañ ko war a teg ci yoon pour prochaine fois keneen du ko def tey buñ ko bàyyi woon tey teguñu ko ci yoon gi nga keneen ku génn te loolu mooy taal dëkk bi loolu mooy taal réew mi moo tax président Diomaye Faye ba koy wax ne mu jóg ci loolu su ko am nga. mu jëkk ci loolu loi bi li képp koo xam ne jàpp nañu teg la ci yoon. yoon yoon mosu fee jóge man yàgg naa ko wax fii yoon mosu fee jóge ñu ñëw jàpp yëpp dañoo laal sa waay man maa sama kër nii toog bu ma deful waxuma kenn du ma jël si kenn du ma woo mais boo defee rek da ngaa jege da ngaa laal tuuti même boo deful cent pour cent def nga trente pour cent foog ñoo xool ba xam yaa def cent pour cent yi wala mais ku deful jege woo kenn du la laal sa yoon du la fekk sa kër rek jël la te defoo dara yoon dafa sew gars yi nañu xool bu baax la ñuy def voilà. ku ci mel ni Tounkara moom tamit mu euh, euh, nga xam ne manifestation yi ci loolu ne dee nañ ci ñàkk am na si part de ñooñu ñoo taal dëkk bi genre yooyu barki Seexul Xadim kooku nga ma wax borom sikkim boobu nga wax. ñoom ñoo taal dëkk bi ñoom ay ki nekk Canada ñoo ñoo taal dëkk bi ba tey ñu ngi foofu toog barke Seexul Xadim billahi wallahi wa ñoom maanaam bëgguñu jàmm di am toujours dañuy am lu ñuy kaaj xam nga dëkk bi am safara barke Seexul Xadim ñooñu du baax du ñu ñu baax. sëñ Tuba du ñooñu ñoo ko wax des fois ñoo ne def nañ ay cocktail molotov affaire yooyu kon kay xam nga kooku du baax man du ma ko def man du ma ko def du ma jël rab bu gën a sew set di ko jox kenn duma lool kon ñooñu bëgguñu jàmm ci réew mi ah nañu waxante de. Antoine John. Mhm. ñu ngi woon Antoine John moom moo doon euh, moom lañ en tout cas wàllum cocktail molotov yeeg bus bi fi taal yëpp moom lañ ko tegoon alors Tounkara génn wax lu mel ni parce que bu lo dégg mooy li ma la wax yoon war a def mooy li ma la wax ñoom maanaam dañuy nekk ci benn cas pare làqatu def leneen bu jiñ ko ñii pour ñoom ñoo koy def mais lépp day feeñ li yëpp li koy feeñal yàlla la yàlla moo rek moom moom moom dëgg te lu fa lu waay def fii ba cent ans bala ngaa dee na feeñ wala boo dee dina feeñ fii yàlla rek moom moom dëgg est ce que nga man nan laay def benn affaire di ko def ci su ba pare tourné di ko jiñ Ousmane ne Ousmane moo ko def te fekk Ousmane laalul bu ko yàqal. fi nga xam ne moom la Ousmane nekk pour ñu daanu xeex boobu dafa garaaw loolu boo ko defee yàlla nga koy defal xool sa diggante ak yàlla parce que yaa ngi fen benn benn yaa ngi fen yaa ngi def lu bon parce que yaa ngi ko jiñ uus te juus xëyul gontul yëgul tinul te yaa ngi koy def ci suuf di jox ay nit ay xaalis ci suuf ngeen def lan pour daaneel li nga xam ne mooy gouvernement bële pour forcer seen gouvernement te suuf yëgul tinul kon ñu ay yàqkat lañ voilà. Azoura Sarr ñëpp xamoon na euh, war na ko fay ci kasa bi man dëgg rek laay wax xaw ma Azoura Fall xaw ma Bah Diakhaté ñoom ñëpp a yem Azoura Fall maa ngi koy après li muy def du yoon benn yoon affaire yi nekkul ay Pastef Pastef jeex na na xool président. non maanaam jeexul exemple mais maanaam li muy ko naan ñun la Pastef ak affaire yooyu nekk Ousmane Sonko nekk du Pastef wala Diomaye Faye président ñëpp la il se comprend nga foofu laay waxee quoi mais li muy toog di live bi saaga ku ne génn mu saaga tey dèjà kon ñoom li doon li li li waa APR doon def tey ñoom lañ toogaat di ko def seen cas yi ñooy toog di saaga ñooy toog di live di wax lu bon kon loolu lañ war a dindi non dépersion ba lan dépersion ba lan non non nanguma nanguwuma dépression na kon nañ ko yóbbu dalal xel mu nekk fa ñu jox ko saal mu toog fa sama gars yi dañuy waxtaan dañu bàyyi li ñuy def di tey na ay dépression fii la fi taxaw saaga may mu ngi ci internet bi wérul lan parce que xam na ne non mais comprendre ma Sénégal du nga xam nga xam nga xam nga Sénégal kan laa kan laa fi wóolu dëgg muy nit ku baax barke seexul xadim bañ gëj a gisee mot na huit ans barke seexul xadim muy Cheikh Alassane Sène barke Seydina Mohamed nit candidat la woon nit yàllaa ngi noonu ku baax koo xam ne ba muy defar Sénégal di def social barke seexul xadim jéemul sax dugg ci ci ci ci ci politique barke Seydina Mohamed te Ousmane Dakar Midi mu may bàyyi du ma may mu mu may bàyyi xel ma bàyyi ma fen moo tax ma gën ko xam muy jàmbaar di doxal Dakar midi kon Cheikh Alassane Diène genre yooyu lañ bëgg Sénégal parce que am na yërmande lépp loo xam ne am nañ ko delloo nañ ko ci askan bi di def ay social di seeti ay nit fu nekk su comprendre nga genre yooyu lañ soxla Sénégal mais pas ñi nga xam tey dañuy andi guerre pour Sénégal wala dañuy andi fii la bokk wala affaire yooyu non non da ngay def tey yàlla def nga asam yi su comprendre nga tey am na lu ubbi tey muy Dakar midi di ko di ko doxal ubbi ko pour askan wi moo tax mu ubbi ko jox sama rak Ousmane macha allah ba mu ko yoree ba léegi macha allah di ko baax di ko doxal te Cheikh Alassane Sène mosu cee xool wala lii man genre yooyu laa soxla ci réew mi. est-ce di wax ne maa ngi koy lancer message Ousmane di ko nuyu ma PDG Dakar Midi di ko ñaanal jàmm di wax Cheikh Alassane Sène gën koo jàpp parce que xam naa ko tas nañ fu nekk te képp tas nañ benn milieu li ma gën li tax ma gën ko wax tey ñoom tas benn milieu am kuy wax Cheikh Alassane Sène mais dafa dal ci parce que xam na li tax mu mu dal ci kawam parce que xam ne cheikh bi li muy def pour réew mi la li muy def pour askan bi la li muy def pour social pour jaamu yàlla yi la ñu ñëw doole parce que Sénégal daa bëri ñu néew doole am pagaay isa babraan nga te dañoo soxla koo xam ne dañuy dimbale day ku mel ni Cheikh Alassane def dimbal dimbal boo xam ne ci réew mi teg nañ seen bët ku weddi dugal Dakar bi di di cliquer day dem fu nekk di seet ay kilifa parce que ñun loolu ci réew mi mais pas ay ngangan xuloo xeex fii day def ko wax ne maa ngi ko ñaanal jàmm parce que nag Sénégal dafa naqaree wax boo waxee ñu ne da lan dafa am lu tax nga wax dangay ngay dóor wala affaire mais man kenn dóoru ma man Coura Wally sekk doxuma dara man moo ginnaaw yàlla du ma waxal kenn Coura Wally sekk mais Cheikh Alassane maa ngi ko ñaanal mu gën ma teel sama DG Ousmane borom Dakar midi xam na nag jàmbaar la macha allah te ku doxal Dakar midi la te gaynde la ku la bëgg la nag xam naa ko baax def moo ko xam naa ko parce que dama fekkee ama démb diggante Ousmane ak euh, am ku doon wax Cheikh Alassane te xamul sax Ousmane ak Cheikh Alassane ñoo nekk. d'accord comprendre voilà euh, lan wax mooy yoon na ci jóg man li may lancer message loolu képp ku fi waxatu lu bon ci internet bi ci TikTok bi na la yoon jël si. sa se comprendre nga dama bëgg ñu defar dëkk bi loolu dëkk ba ñu ko defar loolu lañ pare wax lu bon kër gi boo fi toog di wax lu bon barke alxuraani karim. yërmande yàlla du fi dugg kon moo tax réew mi état pour yërmande dugg fi day problème la parce que waxante bon defante lu bon jëwante ñëw jëy naa baax ma bugg ko yàq ci internet bi te gor kenn du ko yàq ku ko yàq yaa ko toxal di sant ñëpp di gërëm ñëpp yal na ñëpp am jàmm ci barki alxuraan di ziar ñëpp bàyyiwuma kenn di ziar kenn koo xam ne sama doom la muy Sacha Saliou Sacha beauté international maa ngi ko ziar borom diw yu baax yi borom pomade yu baax yi moo neexal kër yi ku nekk xam na ne borom kër yi kenn amatul. Euh, nangu loon dugg sa kër sax parce que mënatuñ benn mais c'est ça am na produit boo xam ne ko andi Sénégal macha allah mooy neexal borom kër yi ku mënutoon benn di nga am ñaar ba pare macha allah dafa efficace amul benn effet secondaire sant ñëpp di gërëm ñëpp di préparer nag incha allah suñ tournée nationale internationale kon ak Wally Ballago Seck le centre du peuple waaye date yi bari na trop war nañ dem France war nañ dem Angleterre Belgique euh, war nañ dem euh, fële Allemagne Bilbao. le 5 incha allah 5 juillet le war na dem Bilbao ki ko tëgg mu ñaari jigéen euh, ku mel ni yow macha allah di ci ay dëkk Sénégal nekk Bilbao ñoo tëgg Wally Ballago Seck le cinq juillet incha allah di fa woo képp ku nekk Bilbao képp ku nekk Espagne waaye itam ñu ngi war a dem Norvège waaye incha allah ku ne xam na ne Norvège sama yaay mu ngi fa mama Olimatu yaay Wally Ballago Seck yaay Ramdaan incha allah Wally Ballago Seck mu ngi ñëw Norvège incha allah tournée bari na ñu ngi koy préparé incha allah ci kattan yàlla. ñun kenn ñëwul ñu ba Wally Ballago Seck ci showbiz duñ wax ak kenn di ñaanal ñëpp jàmm yàlla ñëpp am jàmm ci barke ak Seydina son sonn naa nag maa ngi jégalu baat bee dee mais maa leen tuubal bu baax a baax a baax di jaar ñëpp di gërëm ñëpp